mbokki Miftahul Ulum ad ya ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu defal tawfiq ñu am mbégte ak kontante ci àndaat ak yéen ci suñu dar qasul asari ala nuuril basar fi siirati xayril basar sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu war a ñëw ci bunt bu am solo ndax bayit yiñ mujjee jàng mooy aqiqatu nisaa'u yubdilna amwaalan lahu min ajli albahaa waljamaali قال أما الحرام فالموت أولى من حرام مقال أهل الكمال أتحف الله وصله بنت وهب وهنيئا لها بذاك الوصال loolu nag di ay bayt yu am solo yoo xam ne moom lañ jàngoon ci suñu dars bi passé bayt yi li ñuy wund mooy leer gi nga xam ne waxtaane woon nañ ko ci dars yi paase muy leer ak xaqiqatul muhammadiya nga xam ne waxoon nañ ci xaaj yim séddalikoo ci al aalam al ulwi ak al aalamu sufli yaataloon ci lool leer googu nag ba nga xamee ni feeñ na ci sayduna abdullah ibn abdul muttalib jigéen ñi ñëpp dañ ko sopp dañ ko bëgg mbëggeel gu jéggi dayo ndax leer gi wàcc ci moom ci loolu nag la ko jigéenu màkka yi daan sàkkoo moom ki nga xam ne mooy abdullah ibn abdul daan yulli alal ju bari di ko jox ngir bëgg seq ak moom waaye nag seen càkkuteef googu musuñ koo amee ci moom ndax leer ak yonent bi sallallahu alayhi maska dañ yàlla di ko surveiller ba mu wàccaat ci yonent bi sallallahu alayhi ndax loolu la bàyyi di wax ni lam yazal nuuruhu bi ayni ilahi fi intiqaalin fi l kawni bada intiqaali ثم حتى حل الضياء وتجلى نوره في عبد الإله العالي leer googu nag wàcc ci moom ñu sàkku ci moom ay mbonteef mu bañ moom abdullah ne deema ko gënal loolu bàyyi nee na mooy waxu képp ku mat kon képp ku mat yow nga dee moo la ngay mooy borom bi tabaraka wa wax nañ ni jigéen bi nga xam ne moo taxoon sax ñuy wax muy jigéen ji ko doon sàkku ku ci mel ni ibnu ishaq dafa ne jigéen jooju euh, mi ngi bokk ci bani asad albarqi jële ci ibnu hisham wala ci hisham euh, alkalabi mu ne jigéen jooju mi ngi tuddoon fatimatu ibnu Kutayb moom dafa wax ni ibnu Kutayba dafa wax ni jigéen gi mi ngi tuddoon Layla al Adawiya loolu boo demee ci siiratu ibnu Hisaam diñ ko diñ ko ca fekk tey nag liñ fas yéene jàng mooy wafaau Abdul Mutalib bi nadrihi fi xafri zamzam mooy matal gi nga xam ne Abdul na ko incha allah ci loolu lañ fas yéene jàngat boroom xam siira yi ak boroom xam-xamu taarix yi dañuy méngale taarixu gasub zamzam ci gàddaay yi nga xam ne moom la seydina ibrahim alayhi salaam gàddaayoon ànd soxnaam ci ñuy wax jara ak seen doom jooju ñuy wax ismail jugee saam ñëw fi nga xam ne mooy baladullahil haram te jamono jooju yonent yàlla ismail alayhi salaam gone la woon boo xam ne ci nàmp la tolloon am nañu wax ni sax dem na ba am ñaari at ñu soog a gàddaayee saam moom ak ndeyam ak baayam ñëw fi nga xam ne moom mooy hijaaz rawatina fi nga xam ne mooy makka balan yonentu yàlla ibrahima alayhi salaam indee ba foofu ci xijaas bàyyi leen fa te jamono jooju Makka kenn dëkku fa woon du dëkkuwaay wuñ fa tabax wala muy am ndox wala muy am mbay mu ñu war a dunde yonentu yàlla ibrahima alayhi salaam ba nga xamee ni mébét naa jugee foofu ca ca ca saam a ah, hajara nag gis ni amul kenn kum leen bàyyee foofu koo xam ni moo leen war dimbali ci dund wala mu di leen dimbali ci ndox ci la toppee yoon ci yàlla ibrahim di ko woo di ko woo ibrahim yaa ibrahim naan ko ilaa man tadauna kan nga ñuy bàyyeli yoon ci yàlla ibrahim daa di nopp hajara daa di waaxu ba jege ko ne ko kan nga ñu ciy bàyyil yonentu yàlla Ibrahima noppi ah ba mu waxee waxe waxe waxe waxee ba sonn ci loolu yonentu yàlla Ibrahima ne ko yàlla laa leen dénk Hajara ko ndax yàlla moo la sant li ngay def yonentu yàlla Ibrahima ne ko waaw mu ko kon yàlla doy na ma bàyyi nga mag koo xam ne doy ma duma seetaan mukk yonentu yàlla Ibrahima alayhi daa di taxaw foofu nga xam ne mooy ci montagne wa mu daa di yërëm njabootam gi ndax bàyyi leen fu dëkkuwaay am bàyyi leen fu kër am bàyyi leen fu ndox am bàyyi leen fu ñam am ci la taxawee ñaan borom bi tabaraka wa ne leen rabbana inni askantu bi waadin rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin gayri zi zarain inda baytika almuharram yow yàlla man de dëkkal naa sama njaboot gi ci xur woo xam ne xur wuñ dul bayee la dara amut fi waaye nag xur wi ñu nekk ci sa néeg yi nga xam ne moom lañ xormal te mooy rek ñaan googu nag yoon ci yàlla ibrahim ñaan ñaan la goo xam ne dafa barkel ba tey moo topp xijaaz koom-koom mm, li nga xam ne moo fa nekk moo topp ci gaal meññeef bi nga xam ne moom moo fa nekk loolu nag di am solo ndax ñaan mooy ngànnaay jëpp julli <clears throat> ah foofu nag la leen Seydina Ibrahim bàyyi dem ba mu demee Haajara nekk ak doomam di ko toppatoo ñu dem ba benn jamono ndox lekk yu jeex ñu demaat ba beneen jamono ndox yu jeex Hajara waajante diggante Safa ak Marwa ba xam dina am ko jox lum lum lekk te xale baa ngi jooy ci la yàlla yebalee Jibril mu daal di dóor laaxam yi ci suuf ndox ball ndox moomu nag di ball balliin bu yéene ci la waxe ndox mi zam dalal zam dalal ñu tuddee ndox bi zam-zam euh, baleen ko yàlla Ibrahim alayhi salaatu wassalaam bàyyee hajara di toppatoo doomam jooju di ismail di ko nàmpal di ko nàndal ca lañ dese woon ci ndox bañ deme ba ndox yi jeex ismaila daa di mar layam ji mar mar googu nag nga xam ni hajara mar na ko dem na ba jural ko ni amatul meewu mën a nàmpale doomam mu daa di tiit daa di commencé di daw ci diggante Safa ak Marwa comme ni ma ko waxee sànq benn bu ci nekk waagante na ci juróom-ñaari yoon loolu moo indi ak saa yu bayna safa wal marwa bi nga xam ne ñu ngi koy daw ci ak loolu lépp ko doon def rek ngir wut lumu mu naane xale bi nag mi ngi yuuxu di wequ ngir lan ngir mar wi nga xam ne mar na ko ñenn ci euh, euh, ulama u taarix muarrikuuna yi wax nañ ni jibril moo wàcc ci ndigalal yàlla bëgg laafam ci suuf ndox mi balla waaye ñeneen ñi ci des dañoo wax ni xale bi këdd googu mu doon këdd yi ci suuf ndax mar gu metti ki ron tànkam yooyu ci la ndox mi di zam-zam loolu nag benn riwaayal am na beneen riwaaya boo xam ne dañuy wax ni Haajara dafa génn bàyyi fa doomam dem di gëstu foo xam ne euh, dina fa mënee am ndox mu wër ba sonn amul ndox léegi nag ñu ne mu bàyyi fa doom bi ne moom dafa préféré euh, dem bañ a fekke ci doomam di dee maanaam xolam attanut muy tiim doomam muy génn àdduna ne nag ci jibril ñëwee taxaw ci bërëb boobu nga xam ne fala zam-zam am mu daal di koy dóor ay mbaggam euh, teen woowu daal ball ndox léegi nag xaajara ba mu di jéem a tënk ndox yi mu bañ a Eh, ci ci la di nandal doomam di ko sang naan sangu moom itamit ndox moomu nag mu doon jéem a dajale ci la naan ndox mi zam dalal dalal dalal ñu ndox moomu zam-zam ibnu abbas radiallahu anhu dafa wax ni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni yarhamullahu umma ismail law tarakat zamzama aw qaala law lam tagrif min ma'in min al ma'i kaanat aynan mu'inan wala ma'inan mu ne yàlla na yàlla yërëm hajara mi nga xam ne mooy ndayu ismail alayhi salaam mu ne bu bàyyi woon zam-zam bañ koo tënk bañ koo wax zam-zam konoon dina ball ba doon dex wala déeg goo xam ne déeg gu yaatu la gu tasaaroo guñ mën a dundee loolu boo demee yadhhabi al-bayt al-haram page deux cent quarante bu Muhammad Alwani al-Maliki di nga ko fa fekk ibnu abbas radiallahu anhu loolu la jàngale jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane ni soxna sii di haajara tënk googu mu tënkoon zam-zam moo tee zam-zam bi bëtëb ndox moo xam ne bët bu yaatu la maanaa bëbb ba doon ab dex biir loolu nag noonu la ay bis di romb ay weer di romb wala ñu ne ay semaine di romb bam am benn njëjj goo xam ne ñu ngi bokk ci xabilatu jurhum jurhum nag ay nit lañ yoo xam ne ñu ngi dëkkoon yaman ay arab lañ ci cosaan waaye nag eh, ñu ngi leen dàkkantale seen tur woowu ci palaas bañ dëkkoon ñu di ko wax jurhum waaye nag palaas woowu yi tamit tur yi ñu ngi jugee ci seen benn mam bu ñuy tuddee jurhum kon nag ñoom seen aslu arab la ñoom seen aslu arab la loolu moo waral ñu dem ba ci biir seen dëkkaale gi ñu dëkkaale seydna ba jur seydna ismail moom itamit ay njabootam mujj bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy arab yi te yonent bi sallallahu alayhi wa kenn la ci ñooñu kon nag eh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam jurhum boobu eh, ci yoon eh, maanaam ismail ak yaayam bañ dëkkee foofu ak seen ndox ma ci benn njëg gi ñëw la nag ñu ngi ànd xeet woo xam ne ñu ngi leen di tuddee xeet woowu nag bañ ñëwee ba yegg ci bërëb nga xam ne fala yonentu yàlla Ismaayil nekkoon ak ndeyam muy euh, Haajara ci lañ ñëwee waxtaan ak ñoom ngir sàkku dëkk foofu nga xam ne moom mooy xijaaz ngir wéttali lan wéttali goo wéttaliku goog nga xam ne wéttali nañ leen ko jamono dox ba yoon ci yàlla ismaayil takk ci ñoom soxna soxna soosu mu takk ca nag eh, fala arab yi nga xam ne ñoom ay arab lañ yoo xam ne seen arab ñu ngi soqeekoo ci yonent yàlla ismail foofu la soqeekoo ndax arab yi dañoo am ay xeet ñu tuddee al arabul baida ak al arabul aariba yi nga xam ne seen cosaan lépp arab la ak arab yi nga xam ne mustaarib lañ maanaam ñoom seen lenn arab la waaye seen li ci des arab comme arab yi nga xam ne euh, euh, maanaam comme yontu yàlla ismail waaye nag ñu leen ba ci biir askan wi lépp mujj doon arab wu sell te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom la bokk ba ñuy dëkk foofu nag dañ leen tegaloon ay sàpp sàpp yooyu mooy da ngeen di ñun waaye ndox mi moom ñun ñoo ko moom ñu dëkkaale ñoom di leen wéttali bokk ndox mi waaye tamit ndox mi cosaan la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, Haajara ak doomam ja bañ demee nag ba jamono dox ba ki ñu tuddee Amr ibn al-Haris al-Jurhumi ñëw foofu nga xam ne mooy Makkatal Mukarrama këtt fa benn sàrt boo xam ne bokkoon na ci sàrt yi ñu tënkante woon ci Euh, euh, lañ leen génnee màkka bañ leen di génnee nag ñu jëlaale ay alal yoo xam ne ci kaaba ji la nekkoon mu ñaari gazaal yoo xam ne kéwél yoo xam ne ñu leen defaree woon ci zahab ak juróom ñaari jaasi yoo xam ne jaasi wurus la ñu jëlee woon ko ci buur ak fur wala boog buur ak fursu moo ko hadiya la woon kaaba gi ah, amr ibnu alxaaris jël loolu lépp daal di koy dëxëñ ci biir dex yi nga xam géej gi nga xam ne mooy géej euh, euh, teen nga xam ne mooy teen ab zam-zam daal di ko fay suul a ah, ku ne jàng na nag qissa bi nga xam ne moom la ki nga xam ne mooy sayidi abdul muttalib Euh, am ak gasaat teen woowu nga xam ne moom mooy teenu zam-zam ak la xew yépp ci diggante moom ak ñooñu nga xam ne ñoom ñooy arab yiñ dëkkaloon ca jamono te incha allah qissa boobu dinañ ci ñëw ci lum gën a yaatoo incha allah euh, nettali nañ ne boroom xam-xamu siira yi ak muarrixuuna yi wax nañ ne Abdul Muttalib dañ ko digal ngir mu gas teen boobu nga xam ne waxoon naa ni dañ koo sàkk muy teen ak zamzam waaye nag ci ay gént la ko gisee gént gi di ci moom ay yoon yoon mu am ci benn yoon boo xam ne wax nañ ko ci ay tur yu bari ci turu zamzam muy ay tur yu baree bari yoo xam ne wax nañ ko ci zamzam ndax zam-zam ndox la moo xam ne ndox mu bari woon barke la ba barke bee ngi ci daan nañ ko tuddee ak sub ak sabaa mariya nafia afiya maymuna baraka modiba sifa taamu tomi ak tur yu baree bari tur yu bari yooyu nag day tegtale rek ni ndox mi ndox mu te ndox mu am barke la te boroom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu wér yaram saxal nañ njëriñ lu bari li nga xam ne moo nekk ci zam-zam ak jeexital yi nga xam ne ñu ngi ci zam-zam di faj ay feebar ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam sax moom dafa wax ni zamzamu lima sibir ndoxu zamzam lépp lu tax ñu naan ko rek dina ko saafara ndoxu zamzam lépp lu tax ñu naan ko rek ci jàngoro dina ko saafar saafara mooy xadisam boobu zamzamu lima surit te boroom xam-xam yi saxal nañ ni ndoxu zamzam te ndox la boo xam ne dafa bari ay élément yu ci nekk ci ay élément yoo xam ne dafay dundal jëmmi doomu aadama loolu boo demee ci daairatul maarifi bu alqarnil ishrin di nga fekk ñu indi fa lool bal ndox yi nga xam ne mooy ndoxu zamzam amul ndox mu mel ni moom ci kaw suuf moo tax kii nga xam ne mooy Abdul Muttalib euh, ba gisee ci gént bi ay yoon yoon ñu daal koy wax ne ko demal nga gas teen boobu nga xam ne mooy teenu zam-zam wax ko ci ay tur yu wuute waaye nag tur yooyu boo ci jàpp rek tur la ngir loolu ngir teen bi ñu joxaale ko ci nag ay màndarga yoo xam ne ñoo koy wan fan la bërëb bi ne màndarga yi bokk na ci ne e, teen yi fam ne day nekk kërëg xorondom boo xam ne dafay dem di roñ di dugal tey tamit dinañ fa tuur ab sébbali gëlëm niki noonu bërëb la boo xam ni ab baaxooñ dina ñëw cox fa kon ñetti màndarga yi yépp wax nañ ko yi nga xam ne mooy Abdul Mutalib mu toog na di seetaan jékki-jékki gis ku sotti ab sébbaleeb gëléb mu ne ah benn ñi ñi mu gis xorondom bi daa ci roñ dugal ci néegam mu ne ñaara ñi ñi bi mu gis euh, xuraab bi muy baaxam bi ñëw cof mu xam ni fii la mu commencé gas ba muy gas nag moom dong la woon ak benn doomam bu ñu tuddee alxaalis xaalis mën a gudd dara xale bu ndaw eh, xale bu ndaw la ànd ak baayam baayam di lu ngir gas seen woowu waa Makka bañ ñëwee fekk ko muy gas ñu ne ko looy gas mu ne leen zam-zam ñu ne eh, ñu seetaan ko ñu seetaan ko muy gas di gas di gas ba daj ci ba génnee ndàmba ya fa nekkoon gaañu ne dañ koy séddoog moom moom du ko moom mu ne leen nag eh, lii man maa ko moom ñu bañ lànkal ko loolu léegi ñu ne ko nañ dem ci benn labbe mu assiñ ah bañ demee nag nekk ci yoon yi di dem ngir am ku leen atte kenn ku ci nekk war la nga war ñuy dem bañ demee ba ci digg àll ba seeni yóbbal jeex seeni ndox jeex lépp jeex kenn ku nekk ci ñoom mar ba dara desu juguwut dee ñu ne léegi E, nañ gas ay pax tëdd bu ko defee ku dee sa morom suul la ci mujjee dee rek nekk koo xam ne duñ ko suul loolu moo tane ñu ñuy ñàkkaa suul ñëpp ah ñu déggoo ci loolu gas seeni pax ba nar a tëdd abdul mutalib ne moom du bokk ci loolu maanaam du bokk ci ñi nga xam ne dañoo yàccaaral moom day dox rek ba dee fekk ko foo ko dee fekk rek mu dee fa ci la jugee war ab ab fasam wala ab gëléemam na mu dàqee di dem rek gëléem yi sam njëkke fekki ndox ball ñu naan sangu ñoom ñëpp bañ paree mu ne leen nañ dem ñu ne ko déedéet ñun kay euh, suñ toll nii nañ la lépp ci noonu ci zam-zam moom mi nga xam ni moom mooy abdul mutalib ci maam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci qissatu ibni ishaq moom dafa wax ni jumhuru ulama siira wa taarix maanaam ñu gën a mag ci borom xam-xamu siira yeeg taarix yi wax nañ ci mbiru gasum zamzam mu ne al ustaaz haykal soxal na ko ci siira ñu ne quraysh dañoo xëccoog abdul mutalib ci gasum zamzam ñu xëccoog moom itamit ci ndàmb yi nga xam ne moom lañ trésor yi ñu suuloon ci teen wa muy ñaari xasal e, yi muy e, kiya ñu ko tuddee kéwél ya ak jaasiya ak e, ya nga xam ne nekkoon na fa waaye nag te ibrahim radiallahu anhu ci xasidaam bi ñuy jàngi moom dafay nettali qissa ci ñaari anam tey kuy déglu band yi nga xam ne ci la Baay radiyallahu anhu doon firee li nga xam ne mooy mawlid wala boog ci la doon defee gàmmu ci ngay dégg mu muy tudd ci qissa boobu ne Quraysh ak Abdul Muttalib dañoo dem sàkku ku leen atte benn kaahin bu mënoon gisaane dëkkoon ci bani saad kaahina saadiya ci jasum zamzam ak ci tamit demoon nañ giisoog demoon nañ ca kaahin boobu ci ba nga xamee ni ndàmb ya feeñ na ci teen bi ci biir loolu ci lañ mën a déggee ni xista boobu nga kii di sayda abdul mutalib ak waa màkka dañoo dem ci na ba ngir eh, mu atte leen ak i tamit ngir mu wan leen bërëb yi nga xam ne fa la kan bi di nekk muy ñaari xista yooyu nga xam ne wax nañ ko eh, loolu la ci boroom xam-xam yi indi comme ni ko ibnu isxaaq waxe amaa nag yi nekkoon ca biir foofu muy ñaari xazaal ya jaasi yaag mbubbu koŋ ya bañ bëggee xëccoo ko abdul muttalib abdul muttalib dana leen maa moom ci biir loolu li ma ci nettali sànk ci jaar jaar boobu ci lañ ko ko nangulee euh, lii nag dafay wone Sayd Abdul Muttalib coono yi nga xam ne daj na ko ci Zamzam ndax ku xam na ni lu jiitu zam-zam di feeñ moom lañ toggoon ngir muy nandal maanaam am am mbiru siqaaya beeg rafaada bi yépp ci moom lañ ko ajoon te ku ne xam na ni loolu coono kese la te jamono yooyu amutoon benn doom ku duwul xaalis moo taxoon mu daan xalaat bu baax ci teen woowu nga xam ne déggoon na ni teen la woo xam ne Euh, euh, euh, dañ ko suul dañ ko sakkoon mu di daan ci xalaat lu bari arab yi nag seen xel mësta dem ci loolu waaye Abdul Muttalib daan na sonn ci xalaat loolu ba di ko ay yoon yoon yoon bañ won ko fan la mu góorgóorlu ci def ko ba mbir mi feeñ loolu nag di lu am loolu tamit daf ñuy jàngal makaana bi nga xam ne Abdul Muttalib euh, am na ko makaana bi nga xam ne Abdul Muttalib am na ko loolu daf ñu koy jàngal bu baax a baax ndax makaana bi maanaam dayo bi nga xam ne Abdul Muttalib am na ko boo ko bëggee xam faaw nga dellu tuuti ci ginnaaw leeral ñi nga xam ne ñoom ñooy ay ndijaayam ñoom ñu ngi dëkkoon yasrib ci giir ñuy wax xasraj yaayam moo doon salma bintu amr ak omar an najdiya an najariya al xasrajiya moom nag mooy ci sëyëg xaasim nda xaasim dafa amoon benn tukkeem bu mu defoon ci rexlatu sitaa'i wa sayf jëmoon saam ba jaaree yasriba nag ci la gisee jigéen jooju jigéen ju tedd jigéen ju am askan jigéen ju ko yéem ba mu nag jigéen ji sëyam tas na te bëgg na boroom kër mu daal di koy takk ci doomam ji juddoo eh, maam xaatim ba ba ci la ci la maanaam ginnaaw gi nag mu dellu fële nga xam ne mooy Makka ci la amee doom ji nga xam ne mooy Saybatul Hamdi Hashim nag ba mu génnee àdduna e, ki nga xam ni mooy Mutalib daa di daa e, jël soxna soosu moom itamit nekkoon ku tedd kon gis nga kii ci askan wu baax a baax ci la bokk ci côté ndey waaye nag ci askan wu baax a baax ci bokk ci côté baay moo tax makaana bi nga xam ne am na ko munu ko woon ñàkk am ci waa Makka loolu nag di lu rëy rëy rëy boroom xam-xamu siira yi wax nañ ni Abdul Muttalib lu jiitu muy turwe teen bii zam-zam gas na lu ci tolloog juróom ñetti teen juróom ñetti teen loolu nag ibnu isxaaq nettali na ko nee bokk na ci teen yooyu bi wa abdu shams bokk na ci teen yooyu biiru banu hashim bokk na ci teen yooyu biiru sijilla yi nga xam ne eh, wuute nañ sax ci gas ga eh, muy teen boobu nga xam ne ku wax almataam ibnu adi ibnu nawfal ibnu abdul manaaf moo ko moomoon yooyu bokk na ci teen yi nga xam ne juróom ñeenti teen yi nga xam ne wax nañ ni kii di Seydi Abdul Mutalib gas na ko laata muy am muy gis teen yi nga xam ne mooy teen ak zamzam euh, léegi nag Seydi Abdul Mutalib ginnaaw coono yu métti yooyu nga xam ne daj na ko ci waa Màkka yépp ba yàlla dogal dëggal géntam googu bam turve zamzam ba commencé di ko gas waa Quraysh bëgg a ñëw contre ci loolu ci la mébétee ni ma yàlla mayoon fukki doom yoo xam ne ñooy dox sama diggante Quraysh dinaa ci rey kenn ngir jaamoo ko ko ah mu dox nag ba yàlla mu dundu dund ba yàlla may ko fukki doom ndax jamono ji wax loolu benn doom rek la amoon muy Xaaris ginnaaw gi mu am yeneen doom yoo xam ne am na leen ba mat fukki doom yoo xam ne ñooy doomu ki nga xam ne ñooy mooy sayidi abdul muttalib doom yooyu mun nga ci lim xaaris mun nga ci lim abu talib mun nga ci lim ab zubair mun nga ci lim abu lahab ñi nga xam ne abdul uzza mooy turam mun nga ci lim alxajal muqawim abbas dirar ak hamzatu abdullahi mooy ki ci gën a tuuti ci ay at muy fukki doom yoo xam ne ci euh, di siid abdul muttalib am na ko ba mu amee fukkeel doom nag ah yàlla dogal zam-zam sotti ñu ko fi mu toll nii dara desut lu duut sa nga daal di matal mu am ak jaaxle lool ana kan lay rey ci ay doomam munul ray kenn ci ay doomam léegi nag ñu dem ci benn euh, kaahin boo xam ne moo leen war a def moo leen war a euh, xelal liñ war def ba ba ba loolu amee nga xam ni Abdul Mutalib dem na ñu ne ko ñaata mooy seen diya bu rey mu ne fukki gëléem mu ne solution bi léegi loolu la da di teg fukki gëléem teg Abdullah ngeen wantale bu wan bant yi demee ci gëléem yëpp ngeen rendi gëléem yëpp bu demee ci Abdullah ngeen tegaat fukki gëléem ñu def noonu ñu def noonu ba mat téeméeri gëléem bant bi soog a dal ci gëléem ya noonu lañ jote bakkanu ki nga xam ne mooy abdullah ñu ren ñu ren di gëlëm ba yàpp yi terewuñ ko woon lekk nañ ci nganaaw yi lekk nañ ci lépp lu yàlla bind tam jotoon ci ci ci yàpp lekk na ci kon noonu la ki nga xam ne mooy abdul mutalib matale nëgëram googu nga xam ne moo doxoon ci diggante kii nga xam ne moom mooy abdul mutalib ak boroomam subhaanahu wa kon mbokk yi suñu darsu bi tey foofu lañ koy yemale bu beneen yoone ñu ñëw ci ziwaaju abdullah di amina e, ziwaaj bi nga xam ne abdullah yi def na ko ci amina insha allah allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa